dama xam ne fa nga jëm. non non non non daw ma woon foofu mais léegi dans le cas d' espèce bu Ousmane Sonko. waaw. conseil moom examiné wul sax li nga xam ne. waaw parce que def ne mooy dossier parce que def parce que def ne nekkul électeur. déedéet conseil bon je ne pense pas que sax loolu bind. j'avoue que décision bi sax liiruma ko en en truc parce que y a peut-être beaucoup de considérants euh, mais li ma jàpp rek mooy examiner wul dossier am parce que amul parrainage. dossier bi dafa incomplet. ba mooy loolu rek amul parrainage amul quitus. Ah. mais xam nga aussi c' est bien moo tax ma ne conseil constitutionnel war sa nekk war war sa mujj décider parce que tey man naa am. Euh, est-ce que le à prendre cette décision là. non pour man la ah. sage décision dans ce cas précis c' de savoir pourquoi amul lii. pourquoi amul quitus. waaw ah. pourquoi. amul parrainage. Voilà. parce que mënul retirer fiche. voilà pour man parce que ki nga xam ne ki amul am na amul cutis waaye war na leen ne yor na xaalis kon xam nga xaalis ba mu posé parce que cutis bi dara lu mooy candidat nga am nga xaalis joxe nga chèque de banque boo parce que ku yor. xaalis am na eh, ci banque. te ma la ci procédure bi ku yor xaalis ci banque wax sa banque yi mu defal la attest chèque de banque chèque de banque bi nga yóbbu. ñi li defal la quitus encaissé chèque bi defal la attestation donc premier élément bi c'est pas au niveau de de de de de de CDC c'est au niveau de est-ce que jot na est-ce que mi ngi ci liste bi donc nee naa la ki wax ne ki nga xam ne kii mooy atte ne na waru ci woon a génn ba ci ne kon li ma jàpp mooy bu doon arbitrage bu normal conseil la mu war a njëkk a xool rek mooy est-ce que waa ji d'abord amul c'est vrai c'est un constat mais warta yem ci constat war na wax lu tax amul. est-ce que loolu loolu conseil la. moo tax pour man nag loolu la war a ne. moo tax ma ne la conseil te mun a nekk dernier dernier état bi moom rek sa à dire tey tey jii bu xasee conseil am cette lecture là mais boo ñëwaatee it lecture boobu lay am buñ logique ak ñoom parce que fii ce n'est plus la commission de contrôle c'est les sept sage ñoo def seen lecture boobu donc kenn mënu ko rectifier ñoom ñoo ko rectifier waat. moo tax ma ne man li ma d'accord mooy conseil constitutionnel mu warta munta ne le premier et le dernier rempart mais est que conseil waroon na basé wu ci loolu est-ce que est-ce que ni ñu écarté la candidature de Ousmane Sonko est-ce que du jaar yoon la d'après yow. bu doon man du ma def noonu parce que man pour doon dama ne il faut ma xam lu tax parce que c'est très simple rek de dire effectivement tout le monde savait bu doon loolu jarul sax ñu wetee conseil parce que ñëpp xamoon na ne Sonko mais problème bi du loolu problème bi mooy li ko xañ est ce que yoon la dama jàpp mooy du yoon parce que gannaaw juge bi moo ne du yoon xam nga man du ma àtte mais kii àtte moo ne du yoon